asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp ci sunu page youtube bii di Diwane TV ñoo ngi leen di nuyu bu baax te leen jaajëfal di leen jox seen yëguwaay di leen présenté liggéey bi nga xam ne su koy liggéey mu jëm ci wàllu ubbeeku kii nag doon bayre bu kéemaane lool alwadud boo xamante ne bii dafa ànd ak aram nasra ak quraysi incha allahu rabbi mu doon bu am doole bu kéemaane lool. waaye nag ñi nga xam dañ doon laaj jaara bi am nañ fi ay càngaay yoo xamante ne bii moo ëpp doole jaara bi ndax jaara bi dafa xaw a naqaree liggéey xam naa bari nañu ko bëgg càngaay bi nag gis nga mi àndal parfum yaa ngi nii ak jaaro bi incha allahu rabbi jaara bi nag naqare naa liggéey waaye càngaay bi ni wax seq gi am na seq gi moom moo ëpp doole jaara bi fuuf incha allahu rabbi douze mille basmala am na téeméeri waaqee am na das koy bind ci loo xamante ni bii daanaka semaine rek lay doon téeméer waaqee incha allahu rabbi ak juróom-ñaari waaqaa yi ànd ak suyina ak aram nasra ak juróom-ñaari fatiha yi nga xamante ni pour képp koo xam dafa bëgg garaat wala ak yëkkatiku wala mu nekk ci barab di liggéey bëgg yeneen ndombal tànk wala mu bëgg patron teg ko ca kaw incha allahu rabbi buñ ko liggéeyalee boole ko ak aram nasra ak zuyina mu jëfandikoo ko ni mu ko war a jëfandikoo bu sab yàlla bu dee garaat léegi la bëgg wala beneen poste dana ko am ci lu gaaw insha allahu rabbi ak liggéey bi nga xamante ne su koy wax bayre bukki moom itam mi ngi fi insha allahu rabbi ak xijaabu rasul secret bi ñu wax xijaabu rasul mu doon secret boo xamante ne nag moom kéemaan ak sunu borom la xijaabu rasul moom kiimaan la incha allah képp koo xam bëgg na ko rek na fexe jokkoo ak ñun incha allahu rabbi ñu jàppandal ko ak fu mën a nekk seen mbokk seen xarit Serigne Saliou Sarr xasida doon tu tànk bu yëngu ci alxuraanu karim di leen jaajëfal bu baax a baax ci topp ngeen ñu topp ci YouTube bi di leen ñaanal jàmm sax dàkk barkeb Seydina Muhammad